fi ay faible l'émancipation de l'humain nit ñi nit ki lan moo koy jariñ lan moo koy dindi ci ndóol lan moo koy dimbali ci ñàkk lan moo koy dimbali ci ñàkk xëy lan moo koy dindi ci toroxle lan mooy fiy dindi gorba gobar lan moo fiy dindi nit ñi mëntuñu faju loolu mooy challenge yu mandat bii di ñëw di mandat bépp élu askan wi Grand Yoff ak ci Sénégal. Aha. Euh, monsieur le maire ñu gis ni que également euh, d'habitude dañuy faral di gis ay maire yuy wax ni euh, boo bokkulee ak état. Euh, tey pour nga liggéey boo nekkee maire dafay jafe euh, euh, nga daal di lim fii ay réalisation yu ñu def au niveau donc de Grand Yoff monsieur le maire Pape Madiop Diop tey ci suba dalal nañ ko fi mu def li nga xamante moom mooy bilan am lan mooy nekk élément déclencheur bi parce que on a vu qu'à un certain moment beaucoup de maires dañu doon plaigner wu naan lu ñu am ci seen ay budget le plus souvent dafay dem ci wàllum investissement non du dem ci investissement day dem ci fonctionnement fonctionnement autant pour moi xam nga li rey c'est vrai loolu mooy moo tax mairie bu ndaw bu ci amul ku la dimbali di nga metti lool ma jóob jóob il a un budget d'environ un milliard trois un milliard deux et quelques sur les un milliard trois avec l'acte trois dañ leen transférer le centre de santé ak beaucoup de personnel donc plus de cinquante cinq pour cent du budget de la commune day dem ci fonctionnement fay salaire fay les charges annexes donc lan moo ko dese pour investissement presque rien ci loolu la góorgóorloo moo tax bii xale yi di wax dama ne leen mais xamu leen mérite bi moo jóob am parce que su fekkoon dafa def ni yeneen maire yëpp jël lépp dugal ci fonctionnement du defar dara mais aujourd'hui investissement boo defal Grand Yoff mu jóge feneen ma jóob dugg na ci contribution cinquante million cent million yeneen yi jar cinquante cent million moo koy defal boppam centre de santé yeeg euh, maternité beeg euh, marché yooyu yëpp moo koy defal boppam cent lette de personne il faut que le financement dépasse six cent millions un milliard pour que ñun ñu jàppale ko ci làmp munu ko amu ko donc ñun ñoo ko ci jàppale tali amu ko mënu ko ñun ñoo ko ci jàppale terrain de football mënu ko amu ko ñun ñoo ko te def na ci cent millions gazon bii jar trois cent cinquante million trois cent cinquante def na ci cent millions alors stade yeeg yooyu moo koy defal boppam mais su bëggee def investissement yu rëy amu ko donc kooku ku ci moo tax dama naan maire yi suñuy campagne nañuy bu ñu diggee du question nga bokk état nga bañ état du ñu diggee mais le vrai problème de la décentralisation depuis 2012 au Sénégal xam nga mooy lan nguur gi fi ne bëggul maire yi def bilan dafa bëgg moom rek muy def bilan xoolal rek listeel ñaata projet la état bi taxawal bu banque mondiale wala bu BAD di ko def di ko dugal ci commune yi alors que dans les pays normaux dans les démocraties consolidées ces investissements la ils sont conduits par les communes mais état bi bëggul maire non gouvernement moo naan maa teg PACASEN maa teg ADM maa teg maa teg maa teg maa mais dans les pays normaux la maire yee ko yor mais état bi buggul mairie donc moo tax ngeen naan ku ku fi état bi jàppalewul doo dem parce que état bi en tout cas depuis 2012 bàyyiwul mairie yi ñu def bilan alors que soo demee France ji nga ministère de l'urbanisme amatul France aujourd'hui dañuy xëccoo compétence yi ak communes yi dañuy xëccoo liggéey bi ak communes yi alors que du seen kii du seen wareef Dans un État qui se décentralise, les choses sont pensées à la base et sont exécutées à la base gis nga soo doon defar école tey état bi suy defar école day xalaat école u trois cent cinquante collectivités lancé marché benn entreprise gagné ko muy ñaata mel ni si dëkk dëkkaan yi Grand Yoff Mbadaxun Kumpentum Bandafassi amul ay nit yu mën tabax école wala yu mën tabax classe d'abord soo leen ko joxoon ñoo gën a xam les normes de construction ñoo gën a xam matériaux de construction deuxièmement la ñuy liggéey ak waa dëkk bi lañ koy liggéeyal troisièmement lépp lu ñu am day des ci dëkk bi loolu la ñuy jotee état bi dañu bëgg a wax et c'est ce qu'on reproche toujours au pouvoir du benn Bokk Yaakaar nañu génnee seen bopp ni état bi warul def lépp état day concevoir day orienter li ci des mu def loo ko moo tax CEDEAO depuis 2009 la waxoon état membre yi le budget d'investissement ce qu'on appelle le BCI le budget consolidé d'investissement nañ ko décentraliser di nga suñ ko xasee ba vote nañ ko wàccee ci gox-goxaat yi ñu koy defal seen bopp avantage mooy day gën a yomb day gën a moins cher dana liggéeyloo nit ñi dana fa yóbbu plus-value dana tax gaa yi alal te dana yokk savoir faire population yi dinañ am menuisier dinañ am mason dinañ am ferrailleur c'est-à-dire li nekk ci avantage wu décentraliser investissement mooy que ni gox-goxaat yi ñooy demal seen bopp d'abord ñooy xalaat li ñu bëgg mais ñoo koy defal seen bopp mais tant que état bi mi ngi xëccoog mairie yi bilan duñ jóg ci coono lu yoonu état ci ci ay defar parking lu yoonu état ci defar marché lu yoonu état ci defar dispensaire yooyu état moomatu ko lu yoonu état ci aménager ay mbedd ak i aménager place yooyu état amatul benn réewu àdduna bu ko état bi def même dans les pays communistes ce sont les collectivités locales ñoo ko yor voilà suñu problème donc ba tax na nit ñi def nañ ni ku àndul ak état doo liggéey si di nga liggéey parce que am nga sa budget mais li ni ñëw ban fàtteku fàttaliku mooy ci décentralisation pouvoir bi état bi la collectivité locale mooy maire bu mënti doon c'est un démembrement de l'état c'est-à-dire ci état bi la bokk état bi mooy jël ci li ko am ci li ko war ci li ko mën ci li ko yor mu jos ki jox ko démembrement boobu muy mairie muy département ci compétence ak i moyens jël aussi ci ay recette am ay ressource am mu jox ko collectivités locales yi mais dama lay fàttali une chose ressources yi. dañ koy defaree ci local bi. impôt bi fan lay jóge la formation des recettes. ce sont des activités ki se déroulent dans les territoires. port bi fan la ne marché yi fan lañ ne douane bi xam li ma yooyu yëpp ci ci suuf la donc li mu leen di jox. lu jóge woon ci ñoom la dem ci moom mu delloo si leen ko donc il faut vraiment ñu am un état qui accepte de décentraliser boobaa développement bi dana gën a yaatu dana gën a gaaw. Ah, le maire de Grand Yoff ma Madiop Diop. Euh, il ne cesse toujours de le répéter euh, xëej na euh, loolu di nga ko ko reconnaître nee na bu nekkee maire yàlla ak yow sa loxo dugg na ci bu baax a baax aujourd'hui yow mi nga xamante ne amaana parfois di nga toog nga jàpp sa responsabilité mu ngi ci lu tax mu nekk maire tey est-ce que Khalifa Ababacar Sall est fier de son jeune frère Pape Madiop Diop le maire de Grand Yoff Grand Yoff démb ak Grand Yoff tey lan nga ci mën a wax d'abord su faloo yàlla gis nga nguur moom. yàllaa koy nee na yàllaa ko yow. <laughs> waaw mais dafa baax rek. dafa baax rek parce que moom moo campagne campagne am moo dem seeti nit ñi moom moo doon candidat moo voté mais xale bu baax la dafa yëwan sargale ma loolu ma di ko ci gërëm ak a sant mais il a beaucoup de mérite Pape Madiop en 2014 c'était l'un des plus jeunes maires du Sénégal dégg nga adversaire am ni ñu koy xase ku mu ci tontu kenn mais li ma la mën garanti mooy ñii di bàkkoo ko defar luy ay dessin ki ay projection bis bu ñu jëloon maire ñu xam ni lépp dëgg la ma est un homme de base est un de la base ki connaît la base day nokki di dunda réalité Grand Yoff daf fi juddoo màgge fi di fi fanaan du man du keneen moom fii la juddoo fii la yaroo fii lay fanaan fii lay yewoo c'est-à-dire li xew Grand da ko bokk da koy dund je suis très fier de lui parce que je connais les moyens dont dispose la commune de Grand su ma xoolee li mu def moo tax su ma liiree programme mu ñi ci damay ree billaay parce que dama ne ñii defe naa xamuñu lan mooy budget Grand sauf ñu def ni ñëpp ñu ni bon daa daañu wuti ku ñu dimbali loolu la ñuy defal Pape Madiop dañ ko dimbali et il a très bien travaillé mais ku fi yaakaar ressource propre grain pour defar fi dara da wax lu wax wax loo xam ni yaa ngi bëgg wax lu la neex donc Pape Diop Mamadou Diop est un Pape Madiop Diop est un excellent maire c'est un très bon maire et c'est parce que c'est un très bon maire que ñun ñu proposer ko Yewwi Askan Wi pour ñu reconduire ko il le mérite parce que moo ko liggéey moo ko jëfe Euh, benn question ci Grand Yoff balaa ñu dem ci leneen parce que xam naa léegi ñu bàyyi la nga dem euh, waxtu wi euh, bëriwul temps bi aussi xooj nañu usine pavage bu Grand Yoff mm-hmm. am na histoire bi nga xamante ne xëj na am na fi. Mm-hmm. tudd nañ la ci. Mm-hmm. en une minute peut-être lan nga ñu mën a wax ci historique gu usine pavage bu Grand Yoff nga ne tudd nañ ma ci. waaw nee nañ usine bi yaa ko fi teg yaa ko fi samp. waa usine bi. déedéet ma Diop dafa inspiré wu ci ni ville de Dakar defaree usine pavage te même montage bi du benn usine pavage ville de Dakar ville Dakar moom moom lépp cent pour cent ñoo jënd terrain bi ñoo jënd matériel bi ñoo def appel d'offre nag pour Béli Sacha ñëw di ñu jàngal ak produire pavage mais da ko waroon def pour cinq six ans su pare dem ville de Dakar mooy jëlaat usine moom ko di ko defar boobu mooy montage ville de Dakar Pape Madiop Diop a construit un partenariat et c'est ça son intelligence parce que usine de pavage ville de Dakar mënatul woon jox ñëpp il est allé chercher un partenaire avec qui mu créer usine bi donc euh, partenariat win-win la ville de Dakar dafa bokk privé bi bokk ñuy liggéey pavage bi di ko poser ak a jaay c'est extrêmement intelligent moo tax gis nga gaañe naan xamul manul xamuñu sax parce que c'est de l'ingénierie financière ce qu'il a fait néew grand li mu am ci xaalis bariwul am na usine pavage c'est un win-win partnership c'est-à-dire privé bi da ci gagné grand gagné ci li ci des xaw ma ko parce que Pape ma est maire dana ma cërale lu muy def yëgal ma ko mais wóolu naa ko boo xam ne bëgguma jamais muy dugg ci détails yi mais li ma gëm mooy c'est un homme compétent c'est un nom ku jub nit ku am fulla am fayda bu gëm boppam bu xam boppam bu ma doyloo man d'accord euh, monsieur le maire euh, élection locale dayo bu mu am ci Sénégal Euh, xëy na ñun ay ndaw lañu euh, fàttalikuwuñu ko mais élection locale ren jii surtout à travers la coalition Yewwi Askan Wi gis nañ ne dafa am ampleur euh, au niveau national inspiration bi surtout ni ngeen campagner au niveau national avec à travers cette coalition Yewwi Askan Wi seen objectif lan la. xam nga élection boo gis pour am mandat ak mission parce que man du ma wax nguur. parce que en politique nguur amu fi c'est des mission ñun ñi ñu jàngal liggéey mission la askan wi moo la koy jox walla président bi jox la ko walla nit jox la ko loolu mooy politique ki la koy jox du la tàggu bis bu koy dindeet du la tàggu élection it c'est la même chose li ñu gëm mooy fi réew mi tollu tey gouvernance bi muy national muy local jagul il faut mettre un terme à coow li bari na les orientations que le gouvernement a bokkul ak suñu yos man de bokkuma ak ñoom gis-gis benn bokk yaakaar ca laa bokkoon si membre fondateur mais choix yi ñu def après quelques années man su ma ci nekkoon dana doon leneen parce que gëw ma ni président Macky waroon na defe nii parce que c'est un président post-indépendance dañu yaakaaroon ci moom beaucoup de ruptures malheureusement la déception est grande ci fànn boo ko jëlee ñu fas ne ñun nag ñi bokk ci opposition bëggoon opposition bi yëpp dajaloo di xeexandoo di yëkkateendoo di dóorandoo malheureusement amuñu ko loolu malheureusement c'est la réalité politique mais ñun ci yeewi askan wi ñu gëm ni suñu ànd ak suñu booloo mën na def alternance fii dans ce pays ñu am projet boo xam ne ñun ñëpp d'accord nañ ci pour que Sénégal lii mu soxla tey ak fii mu jëm beneen doxalin la beneen gisin la beneen nekkin la beneen jëfin la loolu ñu gëm moo tax aujourd'hui ñuy liggéey ci projet alternatif projet de changement radical bu wuuteeg bii gouvernement benn Bokk Yaakaar bi def ñu yaakaar ni coppite boobu ak changement yooyu première étape mooy élection locale parce que élection locale ci la nit ñi di mën a liggéey ci la nit ñi di xamee liggéey élection locale mooy moo gën sax fort élection député xam nga lu tax parce que dund ak dundinu nekkinu askan wi ci nga nekk quotidiennement le maire est le premier dirigeant le plus respectable de ce pays ndax li mu gàddu ndax li mu war ndax li mu jël donc ñu gëm ne les premier jalons pour dindi fi pouvoir bi mooy fexe ba élection locale yi un signal fort soit donné par l'opinion et les populations à ce gouvernement que ëllëgam jeex na donc moo tax ñu def projet ànd xumb na nag parce que suñu gaañ yi suñu doxalin daf leen perturber ñun dañuy wax dëgg ñun dañu am projet alternatif dañu ami proposition dañu am nu ñu gëmee nu ñu bëggee nu ñuy doxale donc loolu moo leen bett et ñu dëgër ci li ñu gëm nag te fas yéene gañe ci kàttanu yàlla xëy na looloo tax gars yi ragal ñu mais surtout parce que dañu am de bons candidats dama wax ni suñu différence ak gars yi mooy dañu wóolu ëllëgu Sénégal ëllëgu Sénégal mooy xale yi ak jigéen ñi toutes nos listes son composées et dirigées par la nouvelle génération Et c'est ça qui rassure et qui réconforte. Et c'est ça qui fait qu'on une alternative. donc fii ñu tollu ñu ngi jublu ci élection locale yi. gars yi tiit nañu parce que daañ leen parce que daañu daa daa tiit nañu parce que daañ leen dóor ci nga xam ne daañ leen dóor en tout cas fi ñu ciblé zone yi ñu ciblé xam nañ ni ñoom duñ fa am ndam. alors donc ce que je veux dire mooy que ni. c'est un autre Sénégal qui est possible à travers une autre gestion des collectivités locales une autre gestion pour et par les Sénégalais et loolu mooy nisaru bi euh, Yewwi Askan Wi loolu moo tax aujourd'hui il y a une large une très large une confortable adhésion populaire au projet de Yewwi Askan Wi fu ñu romb rek nit ñu nit ñu fii la yi nga léegi ñu ngi génn ci mbeddu Dakar yi wër nañu Sénégal gépp fu ñu dem xale yi mag ñi ndaw ñi yeewi rek la ñuy wax yow yeewi yow yeewi yow ñu sant ci yàlla di war vigilant nag pour que dimanche yaakaar ak yéene jooju mm. adhésion boobu soppaliku une très large victoire dans les jeux. et la ville de Dakar également mu war a nekkaat encore une rude bataille entre yéen ak euh, pouvoir bi ndax en 2014 gisoon nañu ni mu demee euh, ndax bi yoon également euh, seen xel dal na ci par rapport à la ville de Dakar. fa woon na woon rek ci kàttanu yàlla gis nga ñii moom mun ñu gañe Dakar ñoo ñoom xam nañ ko mun ñu ñu gañe d'abord amuñu projet amuñu projet man dama xool les propositions et les offres qui nous sont fet damay ree y a aucune rupture ñu fi def gis nga da xamuñu tellement ñun lan la ñu def 2009 2021 ba soo liiree seen projet da ngay tiit parce que xamuñu bis bu ñu jëloon maire bi yàlla tere ba dugg xool xam réalité xam projet xam la ñu defoon dakaar xam lan lañu fi bàyyi ñun suñ fi doon jógee yàlla tere la ñuy xam ne ñun liggéey nañu et en profondeur. dans les projets et dans les réalisations mais comme nga xamuñu parce que même ñi ci nekkoon na néew conseil municipal à la ville ñu ñëw donc xamuñu lan lañ nësër xamuñu lan la def mais ils n'ont aucune chance que ce soit à Grand-Yoff que ce soit à Dakar nous avons les meilleurs candidats et nous avons des candidats jeunes et nous avons des candidats que en, en qui les populations ont confiance. Uh -huh. euh, monsieur le maire euh, mu ngoog bëggoon nañu gën a yaatal waxtaan wi ak yow. Euh, mais nag euh, waxtu yi moo ñu xoj am na lu bëri li nga xamante également mu ngi lay xaar ci ay programme donc euh, nga defal ñu honneur ñëw fekk si ñu fii ci rajo Afia FM ak yoon jotaay bi donc ñu bàyyi nga tàggatoo incha allah. man nag damay am mbégte ñëw fi gis nga yéen dama leen fonk comme disent xale yi dama leen fan xamul lu tax vous de vrais grands Yoff-ois c'est-à-dire ay ñafekat ngeen vous êtes des persévérants da ngeen am lu ngeen gëm ji nga seen rajo bi su ngeen meloon ni ñëpp dana weesu fii su ngeen doon def liggaay di def nangu liggaay yi nangu di ngeen weesu nii mais depuis bi ngeen dooree ba léegi mënagul dem li mu nga xam ne ci bilan yi may mer tuuti rek rajo bi biñ fiy mujjee dafa am lu luñ ci waroon def yu ngeen ko fàttalikoo vous aviez besoin de nouveaux locaux on avait dit que dañ koy wër sottiwul mais li ñu wax ma jóg mu ànd ceeg ñun mais bii pas maa koy jëlal sama mbopp parce qu'en vérité Enda man xam nga doomu Enda la man doomu Enda la ñoom Manuel ñi ñëw Emmanuel maa leen jiitu Enda man doomu Enda la li ngeen di def a tax jàppale leen par force la lu war la yéen yéenay baatu Grand Yoff rajo beneen bu fi amaatoo ne du fi safe parce que yéen yéen a gëm Grand Yoff gëm seen bopp di def donc bégte la ma ñëw fii mais wareef la ñu jàppale leen waxoon naa ko te bii incha allah maa ngi yéenay ànd pour merci jërëjëf merci bien jërëjëf monsieur le maire Khalifa Ababacar Sall mbokki auditeur rajo Afia FM euh, moom la ñu amoon mbégte ànd ak moom ci benn édition spéciale mu defal ñu honneur ñëw fekk si ñu euh, si suñu ay locaux ñu waxtaan ak moom euh, ci présentation mi ngeen di ci ak Mamadou Fall dig daje incha allah mbokk yi ci geneen jotaay ak beneen édition spéciale jàmm ak jàmm.